très bonne fin d'année ndax daanaka moo ci des waaye di ñaan yàlla ñun ñii ñu que l'année 2023 soit largement meilleure que l'année 2022 amiin amiin kenn ci wàllu santé ci wàllu amiin ci wàllu sécurité ci wàllu réussite dans tes entreprises ci wàllu euh, euh, communion avec ta famille et ta communauté yàlla nañu ko yàlla defal ba 2024 2023 ñu bokk bind ko ci analu les meilleures années yoo xam ne kenn ku nekk dund nañ ko te beneen at bu ñëw rek gën a neex boobu ñun ñi fi nekk yëpp nag yàlla nañu yàlla may ñu fekkewaat ko mille fin 2023 kon kontaan nañu trop en tant que maire je très content Ziguinchor m'a honoré et continue de m'honorer ndax lu ma woote ci liggéey rek da ma fay jiitu te je fais souvent à votre volontariat kon xam leen kontaan naa ci Ziguinchor te lépp lu ñu mën humainement dinañ ko def pour que Ziguinchor soit la plus belle ville la plus belle commune là où il fait mieux vivre qu'au Sénégal et peut-être même en Afrique. Je vous remercie. voilà di leen fàttali Sonko mu ak caatam sama chéri caatam. voilà nous invitons madame le maire Fatma Niang. sànq mu ne ma. bu ñu joxee cadeau aux enfants du président. sama ñaareel.

non chéri naar naar soxna may yow keneen ki laa lay may bu góor soxna si pardon voilà kaay na kaay chéri yi euh, soxna May. seen chéri yi man caat laa ko. war ko fu mu toll. yii. kooku Ibrahima Mohamed muy si coin yi. loolu manqué la. nee naa leen si seenu laayru bi ngeen di amee lépp. bu leen suba concert. de casserole ñun ñëpp gàlle Sonko ok après dinaa si ñëwaat. ñu ngi woo Yaya Sonko. Euh, Yaya Yaya Yaya Conté s'il vous plaît. le représentant des handicapés. am naa fi son. Allez-y. kooku sa jëkkër Ibrahima Ibrahima yaa ko mag grand man maa moom caat Euh, bonjour tout le monde. comment vous allez Donc bonjour, bonsoir monsieur le maire de la commune de Tiganzor. Euh, bonsoir l'équipe municipale. Bonsoir les différentes agents au maire de la commune de Tiganzor. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir D'abord, euh, propos, on va entamer par rapport aux remerciements. Des remerciements à l'endroit de wow. Michel la maire et l'ensemble de cette euh, la première fois, considération des personnes handicapées dans la commune de Viganjor qui concerne dans les grands Monsieur le maire, nous vous partageons par rapport l'équipe municipale ce qu'il a fait auprès par rapport à votre dirigeance. Ils ont accompagné les personnes handicapées lors de l'ouverture des classes avec des dons de fruits. hôpital Ziguinchor yi pour bébé de l'année. wasalaam léegi nag maa ngi leen di ñaan. ñu ku nekk nga. ngeen connecté leen ngeen abonné cadeau dinañ ko joxe ba mu mat 31 décembre. parce que ñi ñuy bind. bébé de l'année boobu moo fi nekk si cadeau. man ak Soxna Sonko yi ñoom ñoo doxal ba mu mat sëkk. ngeen may ñu yoon bi ni tuuti rek ñu libéré daan yi ñu dem dàllu. voilà je vous remercie merci. baa ma woon la woon la sa chéri ko. gan yi dañuy yóbbu mais Sonko yi lii la voilà. Mohamed Gueye Sène en noir voilà gis na ko soxna may sa jëkkëram ah. la deuxième femme sama chérie voilà Ibrahim sama chérie voilà voilà sa chérie soxna may demuma soxna may sa jëkkër am nga karo la sa chaîne sur la chaîne la radio internationale voilà Naar Fall caat bi série mais Pod amul cadeau. mais man moom sama série dafa tuuti. voilà sur la scène de l'aérobie en exclusivité ay c'est tout merci les grandes dames merci merci merci merci Subir. Honorable Bébé maa ngi lay xaaw. voilà Sonko lu Sonko. moom ba léegi ñu naan Sonko. ok merci. ça va. les accords ça va. c'est Sonko. ouais. joli vraiment moi-même mon cœur est rempli de joie vraiment kontaan ah, na waaw gis naa soxna yi vraiment kenn du ko wax mais son benn s'excusant voilà. sànq dañ doon dañ doon célébrer ah di seetal sama xarit boobu heure ménage ah awo en noir ñaareel en brun voilà sama kilifa la les gars